nit day fexe ba nekk nit jàmm day fexe ba nekk nit jàmm. Eh, di dox jàmm di dox jàmm. di wax jàmm di wax jàmm. lépp loo sabab. lépp loo sabab. ci diine ci diine mooy jàmm. moo tax yonent bi wax ne. moo tax yonent bi wax ni. ci xadis. ni lépp loo sos. ni lépp loo sos. ci jamono ci jamono. di ko dundal ñu di ko dundal. ba yowmal xiyaama ba yowmal xiyaama. ku la ca roy ku la ca bu dee jàmm bu dee jàmm. ci lu baax ci lu baax tey lu baax tey lu baax dañ lay fay dañ lay fay ba dañ lay fay ba ilaa yawmi diin bu dee safaan baat noonu sos garaaw kon lépp looy sos di ko def ci jamono nay loon jàmm lii nag aleykum salaam wa rahmatullah tey nag maa indi leen faraa'idul wudu ñu koy faratay njàpp ngeen déglu baax waaye farata faraidul wudu faratay njàpp saabuun juróom ñaar la ci njëkk mooy anniyatu yéene waqas lun waji raxas kanam waqas yadayni ilal mirfaqayn ak raxas ñaari loxo ba ci cooncey wa masqur rasi ak masa bopp waqas lun lijlayni ilal kaabayni ak raxas sa ñaari tànk ba ci dojoori waddal ku ak bomb wal fawlu ak gaaw tey nag liyeen lee indiloon ba beneen yoon incha allah takbir faratay njàpp juróom-ñaar la dégg ngeen ko de ba ca njëkk mooy yéene raxas xar kanam raxas loxo ba ci conco yi masa bopp ginnaaw ba nga raxasee xar kanam ragas ragg say tànk ba ci dojor yi muy nyari, ñaari man sax ma ngi koy fàtte waaye xale yi fàttali bismillah kon ñu jox kii mu motti mu motti aleykum salaam wa rahmatullah man la sëriñ aale hmm. di jaajëfal soxna bi fi jaaroon hmm. ak njàngale mu am salami. mi hmm. tey nag maa leen indi woon faratay julli koy wax faraidu salaati faratay julli mooy niyatu salaati muayyanati mooy yéene ci julli gi nga nekk wa takbiratul ixraami ak kabaaru alma wal xiyaamu lëë ak taxawaay ba wal faatixatu ak jàng faatixa wal xiyaamu lëë ak taxawaay ba wal rukon akurukom wara feminu baiko sorukoba wasujudu ak sujud wara feminu sigit sujud bi wal inqidal ak yamo watumaninatu ak dal watartibu bayna faraid ak taftala digante farata wassalam ak salman wal julusu ak togaiba tay nak li lii leen na indiloon ba beneen yoon inshallah takbir waratay julli ah ak jurom ñaari faratay njàpp yi amna man ñu mel ne man bañ ko jangé ba neugën dañ ko faté kon suko défé ñu jox Serigne Moustapha nak mu def kaddu yu gatt te ñaanal sëriñ Daawuda yàlla kartanal ko ba li muy yéene mbooloo mi yàlla yaatal dënnam ba man koo jooxe ndax sëriñ Daawuda ko am yéene la ci xeet wi noppalul guddi noppalul bëccëg fu ko nit ñu soxlaa rek ak heure bu ñu ko mën a soxlaa sëriñ Daawuda jóg yàlla yàlla fay la aw yiw ka su ko def nuyoo bi imaamu dëkk bi ak borom dëkk bi di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu di nuyu sous-préfet Mbay Si ak délégation bi mu àndal di nuyu monsieur le ak délégation bi mu àndal di nuyu nag Sëriñ Daawuda di ko ziyaar di nuyu mbokkam ma Cheikh Seydi xam nañ ni foo nekk Moustapha fa ne fa tabaarakallaahu di kilifa yi fi teew yépp di beral nuyoo ak cant ak ndokkeel suñu jarbaat xaaj ma sayar njaay ak mboolem ñi ci gannaawam te jiital ko ak mboolem daayira bi ak tàggkat yonent bi njaay jamil ak ñi ci gannaawam ñépp fa tabaarakallaahu su préfet nag li mu wax ni ci jataay bi lu am solo la day fatali yenente bi hadith bam waxon masalul muminina fi tawadudihim wa taatufihim wa tarahumihim ka masalil jasad alwaxid idha staka minhu uduun tadaa lahu saaxirul jasad fi lxuma wa sahat ee yonent bi daa wax ni jullit ñi seeni diggante ci yërëmante ak soppante ak bëggante dafa mel ne jenn jëmm doomu adama jëmmu doomu aadama bu ca benn cër yëngoo ci wàllu mettit nee yaram yëpp da koy sentir kon loolu daal feeñ na ci jataay bi ku ñëw fii da ngay jàpp ne lii daal du mbiru daayira programme mu dëkk bi yépp la programme lislaam bi yépp la ndax foo làmb rek sa bopp ngay daj loolu sëriñ bi nee na lu am solo la ci diggante ngiit yi la ak bàqiya donte tund wi yépp ñépp ñëw nañ waaye comme ñoo moome moo tax ñu jagleel leen ko waaye seen teewaay ak ni ngeen mobilisé woo ñëwee ko lu am solo la Seydi El Hadji Malick dafa wax ni ci faakihatu tulaab fa azimu jamii lawliyaai kama bihi amara zul wafaai yéen sama njaboot wala njabootu Cheikhu Tidiane wala njabootu yonent bi wala weneen waliyu bu mu mën a doon foo dégg wali yàlla yi na nga ko ormaal jox ko cëram jox ko wàccuwaayam noonu la ko Cheikh Sidi Ahmed Tidiane diglee noon la ko yonent bi diglee loolu moo feeñ ci jataay bi mel na ni yéen ñëpp yéen a bokk benn naanuwaay yéen a bokk benn sëriñ kon lii ci rafetal dëkkaale la bokk ci rafetalum julit la bok ndax tariqa maqaamam ihsan la taxawé moy rafetal noonu la ko alquran waxe inna allaha ya'muru bil adli wal ixsaani wa itaai dil qurbe jeex na kon nag nit bu maandu jiitoo ci moom tomb ñaareel ba mooy rafetal ngeen tudde ko foofu daayiratul ihsaan kon kay tur way wuyu na borom loolu yàlla na yàgg yàlla na dëggu ci biir ni mu dëggoo ci biti ni mu dëggoo ci biti yàlla na ko dëggoo ca biir mooy ca xol ya xol yi ànd yéenante jàmm ndax jàmm soo amul dara du sotti boo bëggee am alal na jàmm boo bëggee yëf yi dox ci réew mi na jàmm am li koy tegtale mooy corona bi rek bi jàmm amul kay boo bëggee jëndi dara sax boo demee fekk boutique ba tëj boo bëggee julli ci jumaa ñun la jumaa yi tëj na boo bëggee dem marché ñu ni marché ba tëj na boo bëggee tiire dara ci bank bi ñu ni banque ba tëj na lu waral loolu ñàkk jàmm kon jàmm daal mooy baasub lépp moo tax moo tax bi lislaam ñëwee bi lislaam ñëwee bàyyi fi tur yëpp bàyyi fi tur tudd jàmm tudd ko diine tuddee ko diine kon diine kon diine boo ci bëggee nekk boo ci bëggee nekk da ngay nekk nitu jàmm moo tax yonent wax na ko ci xadis moo tax nit day fexe ba nekk nitu jàmm ba nekk nitu jàmm euh, di dox jàmm di dox jàmm di wax jàmm di wax jàmm lépp loo sabab lépp loo sabab ci diine ci diine mooy jàmm moo tax yonent bi wax ni ci hadith ni lepp lo sos ci jamono ñu di dundal bayomal di ko ba yowmal xiyaama ku la ca roy bu dee bu ci lu bax lu dañ lay fay ba ila yawmi diin bat non sos graw kon lepp loy sos di def ci jamono nay lon li nak lo am solo la yalla yalla fay len yiw seigne daouda xamna nama yow dal da nga no noppal manon ma baye jël kaddu waye comme da nga no fekk si dañ lay dalal rek waye dal amunu fi kaddu ndax sañ nañ la yoni yoni ko ko ba tay ak di tan nak te wax na ni boko yone bandar bul sol dal, du sol te gëm naa ko lépp mbaaxama kon nag boo ñëwee fii fekk fi sa mag ci biir njabootam kon daal lañ la daan yónnee démb ak bërki démb meen nga yëf yi dañ lay yónni rek nga doxal nu ko mooy waxtaan la noog askan wi fa tabaarakallaahu doy nga ni ci biir doy nga ni ci biti yàlla yàlla taxaw la sàmm la aar la yaag sa wëllëre woowu di sëriñ Moustapha فتبارك الله احسن الخالقين يين في ووتو الحاج منصور الكون نك الحاج منصور في تي غوخ بي سيرن مودو كو دان دالال وي سيرن مودو نيول نين دي نجابوتام مو يار تربيه لين وان لين يون وي كون سيرن مودو واتيونا اك يين وفي نيكو رك يفنتياو سيرن مودو فاتيو يالا يالا تاخو